mbas mi comme ñëpp rek parce que personnel soignant bi aussi ci askan bi lañu bokk fii ci Tëngéej gis nañ ni am na ñu fi laal comme ni mu laalee tamit ci yeneen centre de santé ci yeneen district gis nañ ni euh, laal na fi daanaka lu toll ci ñeenti nit waaye ñooñ bu ñu seetee aussi am nañu njort bu wér ne dalewu leen si biir hôpital bi ndax kenn ku si nekk bu la dalee dem nañ ca service ba nga nekk jéem a saytu xool ndax am na ñeneen ñoo xam ne am nañ fa feebar bi amut beneen bi ci des aussi mooy que ni ñooñu mu dal bu ñu seetoo saytu ñi nga xam ne ñooñu lañ dëkkal muy seen ay mbokk muy seen ay dëkkaale muy seen waa kër muy seen njaboot am na ñeneen ñoo xam ni am nañ feebar bi ci seen njaboot loolu day tekki ni lu gën a wér mooy que ni xëy na lu ko jox seen njaboot googu moo leen ko jox waaye nekkul ni hôpital lañ ko loolu aussi vraiment nekk na moo fi jox doon dox waaye ñu ngi ciy sant yàlla ñoom ñëpp wér nañ ci jàmm ba commencé waat nañu seen liggéey si jàmm